xanaa aw aw ma camp man euh, dama bëgg d' abord ça prouve que bi sénégalais am ci candidat wu benno ah parce que gars yi toppatoo ji ren candidat yi benno benno rek. non ñu ngi toppatoo ah non non non mais nañ yéen yéen a leeralal. kenn leerlewu fi kenn amagu fi parrainage kenn rempli du gu fi benn condition. c' est des déclarations d' intention d' intention. Yewwi candidat est ce que Yewwi day am candidat unique est ce que Yewwi day am. non non non ça non c' était clair pour eux pour Mais, je veux dire aujourd'hui il, il y a des partis yuy xëccoonte la paternité de benn de Yewwi Askan Wi mais ñun bennoo ñu ngi ci suñu liggéey bés bu suñu candidat tëlee ngeen xam ne mbër wàcc na xam nga dañu mën takkusaan ñun parce que 2012 ba léegi. tàkkusaan bu ñu bokk ak gars yi fëgg leen vite fait dañuy bëree dóor gañe ñi bi ñun amuñu ci ñaari non mais mais mais Assane ce que je dis là c'est du factuel parce que 2012 ak léegi y a eu onze élections onze victoires secoué nañ leen bu baax xam baax mais mais xam na li ngeen di wax secoué toujours yéen yéenay may gars yi non attendez c'est-à-dire configuration secoué moo fi am mais ban configuration moo fi am tey assemblée la moo am ngeen dem uti Pape Diop def conférence dama leen di sauver <laughs> non non non non mais mais mais assemblée ñun déjà législative bi fa ñu kat ginnaaw rek rawee nañ ko cinq cent mille voix il faut que loolu ah si si si Yewwi Askan Wi moo topp suñu ginnaaw rawee nañ ko cinq cent et xam nga du deux voix du trois voix du cinq cent mille laa la wax de écart baa ngi réduire. waaw mais non ba écart bi yokk wëy. boobu tas na tasar. <laughs> te yéen boo mooy. Ah, la mais in invisible. quelle main invisible alors par pour yow le meilleur choix le meilleur profil c'est ak kàddu gu le meilleur celui que le président aura choisi. moom ña dama lay wax. ñu vous man je euh, préférence ki président di tànn parce que jàpp naa ne moom moo ñu gën a xam ñun ñëpp. mu ni yow la rek. ñun ñëpp nañ ci topp. bu ñu bëggee gagné mu ci tànn mu non non non pourtant muy tas. 2012 ak léegi xaaral. amul benn député. benn maire. boo xam ne yaa tànn sa bopp ku fi am doom rek président moom la tànn. merci beaucoup président day dem de. kàddu gu mujj bi même buy dem day dem mais ce sera l' absent le plus présent. il sera là. Hmm. ah non c' est une denrée rare sénégalais yi sax doyaluñu ci moom.